wax na lépp vraiment man aw lu ma ci teg eh, wax na lépp eh, su ma fàttali ko bés bi may doon jox lenge yi Alioune Sarr doon ma ko doon jox ci stade Léopold Sédar Senghor boobu xam nga nit ñi dañ doon ñëw di wax waaye boobu man dama tiitoon dama tiitoon ndaxte dama ne Alioune Sarr neexut a 26 ans kooku téye làmb Sénégal ñu ne tey Bira la koy jox mu ñëw dama ko jox man keroog tiitoon naa jaaxle waaye nag ma gëm yàlla gëm yàlla ne man comme moo ko yoroon te muy suma mag te ba mu dem départ 1994 yor CNG ma yor Kaolack CDG kon am naa yaqin ne war naa mun a puus sama wàll ci làmp développer suñu réew Alioune Sarr nag su ma ko tuddee rek damay xaw a xuus ndaxte nag làmb ji daf yóbbu ci niveau boo xam ne dafa dafa jéggi dayoo ndax ko moo ko impulsé indi mobilisation bi indi effectivement la popularité kooku moo nekk sama mentor li ma doon def nii yëpp saa bëggee daal rek ma xel dem ci ma ne ah non naa poussé loolu naa ko delloo njukkal da ko gërëm da ko naa gërëm sant également ministre yi nga xam ne amoon naa seen confiance jox ma liggéey surtout le ministre Matar Ba moom mu njëkk a woo ne ma kaay teel ma CNG bi kon kooku amel naa ko njukkal delloo njukkal également yenn ministre jaar fi jaar Yankhoba Diattara moom tamit jox na ma lenge waaye nag naa gën a gërëm madame le ministre Khady Diène ngay ndaxte moom ba muy doog a ñëw rek mënoon na yegg si ne ma kii dama koy changé ndaxte amoon na amoon na possibilité bi mais defu ko mu ànd ak man juróom-ñaari weer may doxal mais ba mu jotee ba mu gisee ne heure bi jot na mu def li mu def kon nag dama koy gërëm di ko sant di gërëm bi sant son excellence le président de la République Bassirou Diomaye di gërëm également sant son premier monsieur Ousmane Sonko loolu duñ ko fàtte. Sénégal réew la boo xam ne jàmm rek mu fi nekk leneen li may bëgg a teel delloo rek mooy am na fu fekkoon làmb ji nag lépp ma tëwul waaye am na ay jéego yu ci def waxtu yi làmb ji tas ak également la récurrence et la fréquence des combats ak accéléré ko làmb yi bëri ay combats loolu def nañ ko ñëw également gën a fexe ba ñu ñoŋal tey moytu. certificat médicaux yi nga xam ne dafay bari bu combat jege si également am rigueur ci règlement sport bu amul rigueur amul règlement du dem du sori loolu taxawoon nañ ci également tey loolu foog naa am nañ ci réussite appréciation nag mun nañoo différent mais loolu amul solo li am solo mooy lamb ji am fu ko jëlee am na fu indi ndaxte man maa ngi dégg ay téléphone ay message yoo xam ne yi ñu am mbégte ci sama magistère waaye naa gërëm nag presse bi yéen kenn du yéen ndaxte ba may départ dama ne woon ne man ak yéen ba ma fi jóge muy TV TV yi dañ ma installé daa ko wax tey nag maa ngi fiy jóge yéen a ngi taxaw encore kon yéen ay góor ngeen yàlla na leen yàlla may développement fu ngeen bëgg a dem yal na leen fa yàlla yóbbu da ngeen da seen jox ma gërëmaat amateurs yi gërëm promoteurs yi gërëm également managers yi école école de lutte gërëm euh, comment ça encore euh, waa ANES les entraîneurs gërëm suma mbokki bopp gërëm sama famille gërëm sama soxna vraiment ndaxte bu ñël na ma lu bëree bëree bëri di gërëmaat encore le CNG comité directeur bi gërëm le bureau ndaxte ñu nag ñoom ñoo doon réunion chaque lundi di wax di wérante ci affaire loolu yëpp pour lu baaxal làmb ak lu kanam tey yàlla def nag Malick Ngom moo ñëw na ko yàlla jàppale yàlla ko yàlla dimbali yàlla ko yàlla may ndam ci yenu bees bii maa moom loon Kaolack ma yor ko fa muy arbitre mais noonu la ñëw Dakar ma defal ko ab kayit mu ñëw continuer fi arbitrage am da tey jii nii mu ñëw ba mun na yenu CNG kon kooku yàlla yàlla may ndam léegi Bira Sène mooy ancien président du CNG du lutte Malick mooy nouveau président du CNG du lutte loolu ñu nangu ñu nangu koy di ko ñaanal leneen li mooy que nañ toog rek te nangu li yàlla dogal lépp loo xam ne ministère sport def na ko ci wàllu CNG rek ay prérogative ay prérogative am la te noonu la réew mi demee bés bii sama xel demoon na ci dañ may installé xamoon naat bës dana ñëw danaa joxe lengay keneen jël kon lii bett ma mais damay santaat yàlla maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp ci lii ngeen xam ne moo tax ngeen ñëw fi mais maa ngi jot actuellement ni mooy loolu tey boo amoon kàddu yoo koy dénk ci bopp fay ci wàllu liggéeyam lay doon. oo oh, xam nga mili xam nga mën a wax mais du gan ci du gan ci bi nag xam na li war a moytu xam na na chantier bi lan mooy ci taxaw loo xam ne effectivement moom ci la war a commencé béy waaram xam na ko. ndaxte nit ki boo toogee benn man mën damaa yor lii xam nga fa ngay njëkk a teg naa Malick maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla dimbali ko ci waar wi mu xam rek ne mbir mi yombul ak lu làmb yombul waaw CNG bi itam oyoful mm-hmm. oyoful lu diis mais yàlla na ko yàlla oyofalal. loolu am solo la. Mhm. alors euh, loolu laa bëggoon wax. jërëjëf jërëjëf dañuy gërëmaat dañuy santaat. merci